Hello, everybody, ladies and gentlemen, English lovers all around the world. Welcome back to your favorite channel, Press English Envelope. Today, we're gonna have a great important lesson, guys, and it is so special, and it talks about coronavirus coronavirus vocabulary assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi topp seen chaîne youtube fast english in wolof ñu ngi leen di dalal di leen xamal ni tey duñu jël leçon bu am am solo parce que dañu toll ci jamono tawat ji ñu wooyee coronavirus coronavirus dañ ci soxlawoo xam baat yi ñuy utiliser nañ naka lañ ko waxee an anglais dañ ko faral di xam en français mais anglais nag lañ leen indil tey leeral lañ leen ko dañuy taaxee tuuti ñu dugg si leçon bi mbokk yi kon dañuy commencer leeral bi balu ñu dugg nag ci vocabulaire yi ñu faral di utiliser ci coronavirus bi muy tawat ji dañuy dugg ci lan mooy covid 19 covid 19 lan lay firi covid 19 covid 19 lan mooy signification bi covid 19 mooy CO bi muy ko nga seen corona lay firi corona mooy corona bi lay firi ko corona lay firi corona verbi ak e i bi muy vi ay muy firi virus virus virus nag moom lañ yooye virus mooy doomu jàngoro virus mooy doomu jàngoro beneen bi ci mooy dii dii ndax covid nga wax covid am nga CO bi lan lay signifier ñu la corona corona VI bi lan lay signifier ñu ni la virus D bi lan lay signifier ñu ni la disease mooy tawat disease mooy tawat nineteen nineteen nag mooy lan nineteen mooy li muy signifier fii mooy euh, twenty nineteen twenty nineteen maanaam deux mille dix neuf deux mille dix neuf ci la tawat ji am kon coronavirus bi benn tawat la waaw coronavirus disease mooy tawatu euh, doomu jàngoro bi di corona euh, su ko defee ban année la am ñu ni mille dix neuf la la fi ñëw deux mille dix neuf muy twenty nineteen twenty nineteen la am kon mbokk yi dañuy continuer ak yéen ci leçon bi. beneen bi mooy the talk of the town the talk of the town mooy lan parce que dafa am relation xëy na ak corona bi waaw ndax bu ne a person the talk of the town mooy lan a person or thing that many people in a town are talking about in an interested or excited way the talk of the town mooy lan a person mën na nekk nit or thing wala mu nekk benn chose benn mbir that many people in a town are talking about boo uh, nit koo xamante ni wala mbir boo xamante ni nit ñu baree bari ci dëkk bi moom ci benn dëkk moom la ñuy wax chaque jour ci la ñuy waxtaan mais naka lañ ci waxtaanee in an interested or excited way ci bàyyi xel buñ koy bàyyi xel wala uh, am yëg-yëg buñ ci àndal ci di ko waxtaanee tout le temps waaw coronavirus jamono juñ toll moo tax exemple bu mu ni coronavirus coronavirus is the talk of the town coronavirus bi jamono ji moo yor mooy dëkk bi lañuy faral di wax ci wolof naa mbàmm mbàmmum dëkk bi mooy li nit ñi mbàmm waa muy corona bi jamono ji parce que koo wëlbatu ko rek ci lay wax outbreak outbreak ak dañ koy gis lu bari ci journée yi buñ koy bàyyi xel en anglais outbreak mooy spread ba tey mooy tas mooy tas waaw bu ne people example people should avoid the coronavirus outbreak wala spread bu la nee nga wax people should avoid mooy nit ñi dañu war a moytu the coronavirus outbreak mooy tasaaro tawa jii di doomu jàngoro bi di coronavirus bu coronavirus spread muy taw tasaaroo jàngoro ji ba tey spread muy outbreak ñu yem ko epicenter epicenter epicenter ak pandemic ak epidemic epidemic epicenter pandemic xëy na léeg-léeg mën nañ ko jaawale suñ ci bàyyi xel lool mais am na ay différence ci seen diggante ñu ñett yi maanaam danaan faral di wax tawat ji bu fekkee dafa nekk ci benn dëkk mu dal benn benn dëkk dëkk boobu tawat ja tas fa boobaa dañ koy épicentre bu fekkee nag dafa génn dëkk bi maanaam dugg ci réew mi nga xam te ni dal na ñu bari ci réew mi wala gox bu yaatu mu dal leen ñu woy ko ñu woy ko lan épidémique épidémique épidémie lañ lañ koy wooyee su fekkee weesu na foofu nag weesu na réew mi ba dugg ci yeneen réew yi tas ci àdduna bi comme ni coronavirus bi def boobaa dañuy wax pandémique pandémique parce que tawat ju wër àdduna bi kon tawat ju wër àdduna bi lu mel ni coronavirus pandémique lañ koy woowee kon bu fekkee dafa nekk ci gox bi wala mu yem ci réew mi ñu woowee ko pandé épidémique bu fekkee dafa yem ci benn dëkk wala yooyu ñu woowee ko épicentre kon mbokk yi loolu nañ ci bàyyi xel bu baax dañ continuer ak yéen mu ni to transmit transmit mooy lan maanaam toxal jàngoro ji waaw transmit transmit mooy taxal jàngoro ji jël ko yóbbu ko euh, ci keneen nit waaw chaque jour da jàngoro loolu moo koy lawal rawati épidémie yi wala pandémique lay tax mooy woy mooy nit da koy am euh, jegente ak nit daal di ko koy jox yooyu cas contact yi am loolu moo koy waral soo ko defee loolu lañuy wax ko toxal jàngoro yi muy transmit to transmit kon verbe la transmitter mooy ki nga xam ne mooy jël jàngoro ji di ko di ko toxal transmitter bi mooy ki dafa jël jàngoro ji toxal dafa jël moroom mu wàll ko ko wala mu jóge ko am ko dugg ci benn dëkk wàll leen ko kooku mooy transmitter transmission boobu nag mooy noo bi waaw ci leen jëlee transmit transmission kon da ngay dégg ñu naan transmission communautaire kon transmission mooy toxalu jàngoro ji ba tey toxal jàngoro ji to infect infect to infect mooy wàll mooy wàll waaw jox yor tawat jege nit mu wàll ko tawat ji wàll bu fekkee nit daf ko yor su bu jegeen nit rek mën na ko ko wàll to infect comme ni corona bi di wàlle to infect kon mooy wàlle example many people infected each other many people nit ñu bari infected each other wàllante nan ñu bari bari wàllante nan ñu bari bari wàllante nan infectious mooy lan ak contagious ñoom ñaar ñooyam ñoo bokk lu ñuy firi li ñu firi mooy luy wàlle luy wàlle infectious mooy luy wàlle contagious mooy luy wàlle ba tey bu tawat ji wàlle da nga naa dafa nekk infectious wala ngeen contagious example coronavirus is a contagious disease coronavirus benn tawat la boo xam ne dafay dafay wàlle benn tawat la buy wàlle coronavirus is a contagious disease bu la nga wax ba tey ni coronavirus is uh, an infectious disease tawat la jiwal wàll dañuy continuer ak yenn ba tay ci leeral yi ak vocabulaire am solo yi mbokk yi exemple ñu war a jël quarantine quarantine wala quarantine quarantine quarantine mooy lan quarantaine waaw ah, quarantaine quarantaine nit ki mooy ñu jël ko uh, téye ko fenn mu bañ a génn ak affaire yooyu te yu bari bu fekkee nit ki ñaaw na njortu ci ni maanaam tawal ji jege na ko wala def na contact ak comme def li dañ koy faral di denc comme ni ñu koy gis jamono ji pour téye ko lu ay trois treize jours wala quatorze jours pour xool ba xam jàngoro ji mi ngi ci moom waaw su ko defee quarantine mooy loolu mooy quarantine a lot of people in Italy were under quarantine ñu bare bare Italie ñu ngi nekkan dañ leen a quarantaine quarantaine nekkoon daal a lot of people in Italy were under quarantine quarantine dañu nekkan ci dañ leen a defal dañ leen isolation isolation mooy wét isolation mooy wét waaw isolation mooy wét mu ni most of the infected patients are in isolation most of the infected patients lu ëpp ci ñi nga xam de ni dañu tawat tawat ji dañ leen ko wàll are in isolation mooy ñu ngi nekk ci ñu ngi nekk ci dañ leen a ber maanaam dañ leen a ber dañ leen a ber a confirm case confirm case mooy lan cas confirmé confirm case a confirm case mooy cas confirmé Senegal Senegal's first coronavirus confirmed uh, case took place in April Senegal kaam bi njëkk bi cas bi ci njëkk am muy cas confirmé ci weeru avril la woon a critical case a critical case mooy cas critique cas grave comme niñ koy déggee tey ñu ni réew mi am na cas grave am na quatorze grave wala dix wala am na benn cas grave a critical case la ko anglais wooy muy cas critique Senegal has declared 18 critical cases today. Senegal has declared 18 critical cases today. senegal tey déclaré na ñaata 18 cas critiques wala 18 cas graves am na euh, fukki fu ñu wooyee euh, fukki cas ak juróom-ñett yu. yoo xam ne maanam ñu ngi ci danger wala seen seen tolluwaay yéeme na su ko defee noonu lañ continuer mbokk yi recovered recovered case recovered case mooy lan kaa boo xam ne mooy kaa guéri kaa guéri kaa boo xam ne moom wér na kaa guéri recovered case muy jox la ci exemple nii la praise be to God sant yàlla rek today tey our doctors sun docteurs yi discharge génne nañ one hundred recovered cases téeméeri cas yoo xam te ni cas guéri leen maanaam ñun faj leen ban wér ñu daal di leen di génne kon discharge buñ ko waxee ci hôpital ak maanaam mooy ñu jël ñu fi bàyyi ko libéré ko faj bu benn ñu libéré ko discharge lañ koy wax kon noonu lañ continuer mbokk yi hospitalized hospitalized hospitalized mooy lan koo xam ne dañ ko hospitalisé hospitalisé kuñ ko def dañu wax ni kooku he is he is hospitalized example doctors hospitalize a lot of patients every day docteurs mooy docteurs yi hospitalize dañuy hospitaliser a of patients ñu bari ñoo xam ne maanaam dañoo wéradi maanaam ñu bari ñu ñoo xam dañoo nekk ay malade every day saa su nekk saa su nekk dañuy jël ñu bari ñu leen di ci hopital bi téye ci hôpital bi loolu lañu woowe hospitalize mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sàkku rek ngeen képp ko abonné gun nga abonné ci chaîne bi beneen bi nga nga j'aime ñu ngi koy sàkku beneen bi nga commentaire te partagé ko ak xarit yi euh, jërë ngeen jëf ngir gën nu mën a dëgëral ñu ma gën a mën a ànd ak yéen ci yeneen leçon waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu